de Harissau nekkoon nongo bi nga xamante ni moom la ñu gënoon a ràññee ci concours général bi amoon atum 2018 2019 moom nag ñeenti fan ci weeru janvier boobaak léegi kenn tegagu ko gët kenn xamul nag ana moom ci lan la ne kenn xamul itam fan la ne média français yi nag jamono ji ñu ngi leen di dégg ñu di ci wax donte ni sax du ñoom ñëpp ñoo ciy nekk di ci wax bu baax a baax a baax waaye nag ñi nga xamante ni ñoo yore bile enquête ñoom li ñu xam léegum mooy que ni daal kooku di jaari dafa dem ci ak sagoom maanaam dem gi nga xamante ni dem na ko te kenn tegu ko gët enquêteurs yi li ñu gum mooy que ni loolu moom la neex ki nga xamante ne nag moo di waajuram bu jigéen démb jot na yëkkati ay kàddu di xam leen ni nag depuis bu mu yëgee ni que ni doomam gisuñu ko boobaak léegi mënul fexe fexe fexe ba gëmm bëtam benn yoon ki nga xamante ni itam moo di Serigne Mbaye Thiam di jëwrin ji nga xamante ni ci ay jamono moo yoroon li nga xamante ni mooy wàllu njàng mi moom nag jot na jannoo ak journal bi nga xamante ni moo di Le Point Afrique moom nag lim fa xamle mooy que ni daal ñoom am nañu yaakaar baax a baax dinañu gis ki nga xamante ni moo di jaari saw ambassadeur bi nga xamante ni moo nekk fële nga xamante ni mooy ci diwaanu France di màgget Seye moom itam mu ngi xam le ni daal ñoom am nañu yaakaar bu baax a baax ni que ni ki nga xamante ni mooy jaari saw nekkul ci danger ba pare itam ñoom am nañ yaakaar ni kii di jaari mi ngi dund ñuy ñaan yàlla nag moom mi nga xamante ni moom la dara tawul yàlla na ko yàlla nit ba mu mën a feeñaat ak jàmm